man honorable Cheikh Tidiane Diouf le président du mouvement construire Tiwaawan durablement man manio du di askanu politique 1996 ba élection buñ ci mus a am bokk naa ci ñi jiitu ñu ko taxawal 96 ba léegi ca Moustapha Niang ba ci tey amul benn élection boo xam ni nekkuma ci un acteur majeur di fi jaar 2009 ak 2014 jarul ma ci dellusi bi ci des ñépp xam na ci Benno Bokk Yaakaar laa nekk. jiite mouvement bu ñuy wax construire Tivaouane durablement kon tay may féddale di raffirmer affirmer suma ancrage ci Benno Bokk yakar di ziar du nuyu sunu serigne sunu sang sunu cheikh sunu kilifa sunu xalifa général Maulana Cheikh Seydi abou Sy al xalif di jaar ci moom mooy bunt bi di nuyu képp koo xam ni njabootu maam Cheikh Seydi Hadji Malick la di nuyu képp koo xam ni kilifa nga ci xadara bi moo xam martaba ba nga mënti am yaa xam muxaddam nga yaa xam imam nga yaa xam président daayira nga yaa xam président fédération nga yaa xam ci mouvement allié yaa xam taalibe nga boo mënti nekk ci xadara bi di nuyu tamit

man demuma utuma utu ko moom tamit jéem na ma ut ba tàyyi yàlla def antuwul ba sëriñ Abdou dugal ci loxo dugalaat ci loxoom dugalaat ci loxoom ma dem ànd ak moom ci njëgalu sëriñ Abdou moom tamit téye na ma ndax samay qualité bopp parce que xam na ma xam samay performance xam li ma ko apporteel xam li ma ko mën a apporteel xam aussi sama loyauté ak sama dëggute ci politique donc boobaak léegi aussi Bayou benn yoon bi ma assemblée def président du conseil d'administration de la ma def fa deux ans tout récemment jëlaat na ma ma président du conseil d'administration de l'ANPEJ kon moom wàccoon ak man ci taxawaay loolu mu def tamit xamna ni doomu Tiwaawan la bu waa Tiwaawan bàyyi xel xam ni doomu xadara bi la bu xadara bi baye xel xam ni tamit ñooñu politique yi bàyyi nañ ma xel ndax sama taxawaay ak sama liggéey ak li nga xam ni ñoom laa àndal ñoom ñëpp ñu yéene ma kon loolu aussi maa ngi ko ciy gërëm di ko ci remercier di ko ñaanal yàlla di feddale sama kóllëre ci moom ak sama bokk gi ma bokk ci benn bokk yaakaar maintenant ñoo ngi jëm ci échéance yu crucial maanaam dañu jëm ci ay taxawaay yoo xam ne taxawaay yu am solo la mooy fas yéene jox gox yi ak gox goxaan yi tànn leen seeni jiit muy lu am solo parce que développement Sénégal walla émergence Sénégal mu ngi jaar ci émergence su gox yi ak goxaat Sénégal mënul yokku su nekkee dëkk yi ak dëkk dakkaan yi yokkuwuñu parce que boo dajalee dëkk yi ak dëkk dakkaan yi loolu mooy nekk Sénégal bi ci des loolu tamit jàpp nañ loolu pour mu jox il faut que am ay exécutif fort. ay exécutif locaux fort manam ay kilifa gox-goxaan yoy ñuko yor dafa wara nek ay kilifa yu mën sen bop xam sen bop mais aussi xam li li askan bi soxla ca taxaw wara a sen bop fajj faj fajj a jafe-jafe askan bi motax bu élection yi jógee man élection yi fi jàll yépp waxna len candidat la mais bi bu mu ñëwé dama woo sama gaay yi xaw maat at préparé len ni len man kat élection yi di ñëw gëm naa ni préparé wu pour nek manam pour concourir au suffrage des Tivaouanois parce que processus la bo xamni tu le prépares sur 2 ou 3 ans yàgg naa koo def xamna euh, process bi yëpp nu muy déroulé duma ñëw wax len ko. man leen nag ñun lu ñu amal njariñ du suñu bopp lu ñu amal njariñ du suñu groupe politique bi lu ñu amal njariñ moo lu yëkkati Tiwaawan jëmale ko ci kanam kon mébét yi ma amoon ak projet yi ma amoon ak namm nam yi nga xam dama ko am bokk ko yéen képp koo xam ne gis nañu loolu ci moom ñun war nañoo mën a fàtte suñu bopp àndoo kooka jéem a fexe ba loola maanaam mën a antu ndax Tiwaawan li ñu fi métti lépp ñu mën a ànd faj ko ci bi loolu amee ñu ibbi waxtaan waxtaan ak ñu waxtaanal pendant depuis juillet démarré nañu processus de concertation en interne sunu nos euh, mouvement bi yépp jeunes Famille, troisième âge yi euh, universitaires mouvement ouvrier mouvement religieux bi ñëpp kenn ci bàyyi la nga xalaatal sa bopp joxe sa conclusion xalaat ci biir loolu Jóob wooñu këram ñu dem seeti ko bañ fa demee man Ablaye boobu ak Abdou Sall ñoo fa dem mu wax ak ñun ni dama leen dama bëggu tàllal leen loxo ñu ànd liggéey ñu ne ko ah loolu de rafetlu nañ ko du ñu ko bañ waaye dangay ñëw dajeek ñi nga xam ni ñoom ñooña ñooy décider nga wax ak ñoom loolu il l'a fait depuis le mois de juillet ou le mois d'août ba mu ñëwee bo ba léegi ñoo ngi waxtaan parce que fi groupe groupe démocratique là. je suis le leader mais waxna ko ñi fi nek bo né commissaire Farba Seck wax préfet Gorma Sène wax madame le maire Mbouleye wax Badou Diouf ñooñu mën nañ ma jur ba ñuy am teraanga ma ngi ci daara ji di def tànku neen groupe bi yoruma ci kenn ndëkki yoruma ci kenn poste amul lenn kenn luma yor ñom ñoo baax dégg wor doyloo ma jiital ma moo ba commencé ba léegi di and musuma jël décision dans ce groupe tout ce qu'on fait se fait de manière consensuelle démocratique euh, concertée xam nga inclusif de manière inclusive deng nga et participative ñeppay wax sen xalaat ci loolu ci lañuy waxtaan di ci waxtaan di ci waxtaan ba gis ni ñun li ñuy bëggoon ci Tivaouane gis nañu ku bëgg lu ko toll wala lu ko ëpp bi ci des xool nañu environnement am xool équipe am xool taxawaayam depuis dix ans parce que 2012 laa ko gis mu commencé taxaw fii ci Tivaouane taxaw fii taxawaayu politique mais auparavant Demba Diop ñu bëri xam nañ ko ci sëriñ Mansour muy sunu baay di sunu sëriñ man maa ngi ko miinee saalu sëriñ Mansour. parce que bu leen fàtte ni maay président COSCAS ay at yu bëree bëree bari may ànd ak sëriñ Abdou jóge kër sëriñ Abdou ànd ak moom ba kër sëriñ Mansour bu ñu demee fekk fa ca saalu sëriñ Mansour ñu ànd xaar ànd dem burdu bu paree moom bu dem ñibbi bu def chaque jour burdu mu jóge dakaar ñoo burdu ñu dem kon loola boo leen ñu njëkk waaye taxul ñu ànd ci politique parce que man politique du lu may sentiment loolu may def communautarisme du ma ci xool mbokk du ma ci xool xarit sama gëm-gëm laay xool ak li nga xam ne amal na njariñ réew mi amal njariñ Tiwaawan amal ñu njariñ parce que tamit nit du yëngu ci lu ko amalul njariñ bu ñu waxtaanee ñoom ñëpp de manière xam nga à l'unanimité d'accord nañu pour ànd ak Diop sur un partenariat politique sur un partenariat politique sous-tendu par un programme concerté boo xam ne ñoo koy ànd ak doomi Tivaouane yi nga xam ni yàlla def na ni même bu ñu politikul ñun gënuñu leen bëgg Tivaouane gënuñu leen xam Tivaouane ëpp ñu leen sañ-sañ ci Tivaouane ci ñuy ay borom xam-xam reconnu sur le plan international ñu paré futteeku pour duggal seen loxo ci développement Tivaouane ak ñi nga xam ne ñëpp tey jii pare nañu li ma yob waxtaan ak Diop ba d'accord ci critères yi ma xol ak qualité yi ma xool ci Diop ba tax ma ànd ak moom am na ñu ma jiitu ba ànd ak ceeg moom donc ñooñu tamit maa ngi leen nuyu suma frère Cheikh Tidiane Sall mi ngi nii suma frère di sama tama ñu bokk turando suma frère Pam Momar Gaye di sama cousin di sama doomu nijaay ñu bokk ci njàndaxum nekk APR loolu moo lay won ni fii ñi fi nekk ñëpp fi nekk kii c'est un grand responsable dans l'APR mais gis nañu tay ka ñun amuñu problème ak APR amuñu problème ak Benno Bokk yaakar mais candidat biñu tek ñun am nañu mom problème bo xamni ne mënu mënuñoo and ak mom ñi ma andal dañ ne ma boo ak mom ñu bayyi la ñom ñëpp amna wala amul ñom ñëpp unanimement ñoo ni ma Cheikh président jox na la cër ci Benno de responsable yoy yep xam nañ ko waaye ñun day kii bu fekkee ni président daa tànn kii boo fay dem yow dong yaa fay dem te nag damaa sonn pour dañoo sonn pour taxal sunu sunu groupe politique bi bi ci des tamit bi loolu amee ma xam ni ñun ñëpp nga gis ni kenn ku ñu rekk da ngaa tënku parce que ña la jiital ñoo la tënk ñooy ñoo yor ngalaab gi ñooy lay wax direction bi nga aw kon ñoom bu ñu taxee wax loolu duñu mën lu dul trop ci li nga xam lu ñu bëgg. fas yéene submeeku nag ànd ak moom la ma waxanteeg moom wax naa kook moom maak moom wax naa kook moom ci délégation mu dégg moom xam na man xam na yàlla xam na sunu yéene ak sunu pas-pas samit am na lu mu ci xam waaye bu ñu demee ba ci kanam ci la koy gën a xam maa ngi continuer présentation bi sunu grand mi ngi nii grand Ali Sow Seck nekk gëm sa bopp euh, grand cadre ñi xam Tivaouane yëpp xam nañ ko xam famille yëpp xam rapport particulier yu mu am ak Serigne Cheikh bu Serigne Mansour donc muy grand bu ñu kii taxawaayam di doomu Tiwaawan boo xam ne kenn du ko naataal kon tey jii ñii ñoo ànd ñun ñii fas yéene ànd ak ñeneen ñi ñëw fas yéene ànd ne bokku ndey bokku baay ànd liggéey pour jël Tiwaawan teg ko ci loxol Jóob si ànd ak soppi Tiwaawan soppi xarkanu Tiwaawan fexe ba dëkk Cheikh Seydi Hadji Malick bii nga xam ne nu mu mel metti nañu ba egg suñu xol dañoo rus ñëpp rus ku juddoo Tiwaawan wala ko fu màggee wala ku tànn Tiwaawan ñëw dëkk wala kuy taalibi Tiwaawan tey am nga kersa ci ñi dëkk bi mel ca loolu taxawaay ki ñu ko teg ci loxoom la ak taxawaay waa Tiwaawan duñ ko c'est une responsabilité partage parce que maire boo liggéeyul population ba ko fal dañoo war a taxaw ni ko liggéeyoo jëflante ak moom avant élection di ñëw tey jii waroon nañu régler lu bëree bëree moo ci ah, suñu diggante moom mais comme am nañu dafa def examen ñun ñoo koy noté am nañu occasion noté ko sàcc bu dul rëcc la kon ñoo ngi koy xaar ba xam 2 sur 20 lay am wala 1 sur 20 zéro moom duñ koo may parce que lu bon bon waaw def na tuuti def na fi final ku maire dégg nga kon daal foofu lañ leen di xaar incha allah yàlla nañ ko commencé ci bisimillahi rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin Diop sii ni mu sagalee xaadara Cheikh Seydi Hadji Malick sagale ko teewoon yàlla na ko ko waa teewoon dalloo barus ko incha allah jàpp nañ ni borom xadara bi du ko seetaan parce que yàlla du ko seetaan parce que yàlla du weddi boppam kenn du def lu baax di ci jële safan kon ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp du nuyu ñi ñu fi fekk ñëpp ànd kook ñoom depuis lors nag parce que bu leen fàtte ni élection présidentielle yi man mii Diop si Seynabou Gaye Touré ak Abdou Ndéné ñoo ànd liggéey département bi moom mat sëg jaan si génnul ci waawan ñu ñoo def les dix huit communes dix huit communes yëpp def nañ ko ànd kook Abdou Ndéné ak ñëpp bu ñu saneen noonu ñu ko ànde ñu àndee ko waaye politique tamit parfois day am événement yoo xam ni dafay ñëw dal suñu kaw mais bu dalee aussi kenn ku nekk da ngay analyser def li dal sa xel kon ñoom ñëpp suñuy doomu ndey lañu ñun pour la communauté Tivaouane nous nous engageons avec un partenariat politique avec l'honorable président Demba Diop Sy wasalaamaaleykum wa rahmatulah. di nuyu Cheikh Ahmed Tidiane Diouf mi nga xam ni moom laa fekk ci tey di rafetlu taxawaayam ci dëkk bi ndax li nga xamni mom lañuy def ci dëkk bi fekk naa ko mu koy def ci bi déjà fekkoon naa muy toppatoo xale yi di toppatoo étudiants yi di toppatoo njaboot gi di toppatoo kër gi kon loolu fekkoon naa ci moom ba pare damay wax politique day am moment boo xamee kenn ku nekk da ngay fàtte sa bopp ndax nag njaboot gi moo jiitu d'abord boo amee famille boo màggee am ay doom am njaboot boo yeewoo suba li ngay jëkk xalaat doo xalaat sa bopp sa njaboot ngay xalaat ñun nag teewoon comme njaboot la si ñun mu ñu yeewoo suba teewoon lañuy xalaat kenn ku ci nekk bu yeewoo suba xalaatam mooy naka lañu def ba dëkk bi jàkk kon Cheikh bu ñu waxee ne que dañuy def partenariat ànd loolu dama koy wax moom lay waxtaan toujours naan nit yi dañuy àndandoo liggéey man wax naa leen ko waxaat ko dama ne genre manager laa rek am na compétence yoo xam ne yaa ma ko ëppale yow seex am na compétence yoo xamee ni que Pape Momar ma ko ëppale am yoo xam ne Cheikh Tidiane Sall ma ko ëppale am yoo xam ne Ali Sow ma ko ëppale am yoo xam ne Moustapha Dialimar moo ma ko ëppale parce que nag ànd gor moom doo bàyyi dara. amul benn cadre bu dëkk Tivaouane benn cadre laa wax ngay politique wala nga ñàkk politique te woowuñu la wax ak yow amul benn mag bu nekk ci dëkk bi te demuñu si yow wax ak yow loolu depuis huit mois ñu koy dox kon xëyuñu tey rek nga dañu xëy rek ànd jàpp leen di ànd bi bañ koy suuxat du tey commencé woon nañ ko bu yàgg dañ koy doog a mottali tey rek ndax àddunaa di mel dañu nekk ci jamono joo xam ne dafa am loo xam ne boo koy def faw faw nga fësal ko ba ñëpp xam ni lii moo nekk ndax xam nga lu tax borom pexe yi dañuy xëy suba naan lii day am Cheikh dama ne post ak ñàkk post ci bokk yem ku la laal laal ku la laal laal moo gën ku la laal laal Cheikh ku la laal laal ku la laal laal laal ñëpp dama ne Ousmane Sarr ñëw na dégg la maire Chérif Lo sama xarit la xarit Cheikh la xaritu Pape Momar gay donc ça veut dire que ñu li ñu def ñëmé nañ ko ragaluñ ko problème mu Tiwaawan nañ ko yamalé tiawon làng ji bir fi la kenn génnewu ko kon nañ ko yamalé fi rek bu ñu xëyee suba nañ jappali ñun dañu gëm yàlla gëmuñu ko sax dañ ko wool dañu bayyi suñu bop ak yalla ndax ñun plan bi ñuy dox yalla mo ñu koy doxalal kon nak ci lañ sante yalla ma ne damay gërëm ñi nga àndal ñëpp ndax li nga wax léegi dafa garaw danga ne dañ la wax ne la Cheikh boo demee ci keneen ñun ñu bàyyi la dem ànd jëf loolu mu doyal dara dootu la loolu ku mu doyul dara dootu la doy yow ñi nga àndal yow yaa leen tedd ci politique nga ànd ak ñoom fu nekk ñu xëy si ma ne la Cheikh na nga góorgóorlu bul ànd ak kenn ku dul jëf si ça veut dire que ne ñoom dañoo d'accord ci ne ñun li ñuy def dañ ko ñeme maa ngi sant it ñi ma àndal parce que ñi ma àndal tamit mësuñu teggi seen loxo mësuñu bàyyi ndax lan parce que gëm-gëm la àndandoo bi noonu la wax naa leen ko nee naa leen man lu ma am biir Tiwaawan laa koy def aw ma ci sago yàllaa ma ko defal kenn ku nekk li yàlla def si yow li yàlla def si man nag mooy bu ma amoon ay multimilliards biir Tivaouane laa koy sotti bu neexee nit ñi fi laa koy sotti bu lu ma gëm El Hadj Malick laa gëm waa kër Sëriñ Tuubaa laa gëm ñëpp laa gëm xam nga lu tax wane ko léegi dañuy nit sant Badiane Fatou Badiane Fatou Mbacke foog ñu sant waaw sëñ Modou Bousso Mbacke dañ koy sant sëñ Mouhamed Mbacke dañ koy sant dama ne ñoom ñëpp kenn ku ci nekk. damay waxtaan ak yow parce que dama jom ni que li ñuy def dañ ko teg ci yoon avant ñuy wax man ak Cheikh mii wax nañu ak soxna Fatou Mbacke bërki démb wala biig ci guddi mu ne Cheikh damaa kontaan ci seen ànd yéen ñaar parce que boo leen àndee rek wóor na ma ni sama doom ak sama xarit ñoom ñaar ñëpp ànd na la muy wax ci suñu kanam la ko waxee kon dañuy sant yàlla bi nga xamee ni que waa kër suñ Touba d'accord nañu suñu ànd waaw waa kër El Hadj Malick d'accord nañ si ñu ànd. waaw waa kër sëñ Bou Kounta d'accord nañ si ñu ànd. waa Tivaouane d'accord d'accord nañ si ñu ànd. bi nag pour waa Tivaouane la mais waa Tivaouane ñëpp lañu ñu ngi si biir kon vraiment ñu ngi leen di sant di wax ne que Cheikh li may wax dama koy waxaat di ko répété na sa xel dal bu mu dal sax ma ne na xel daj li ma la ko wax xel yi dal dañoo daj ñun ragaluñu tiituñu yàlla ñëpp la fi nekkal dama ne yàlla ñëpp la fi nekkal jàppal ni dara na la dal heure bi daal nañuy politique kenn mënuñoo tiital kenn mënuñoo puukal kon nag jàppale ni ñun fa ñu nekkoon dañuy nekk ba léegi du ñu mës a changer ndax xam nga la mooy lan la mooy problème bi objectif bi moo ñëpp doole objectif bi mooy lan mooy teewoon na jàkk bu teewoon jàkkee ñun li ñu doon bëgg am nañ ko kon ñun ñu dara lu ñu wax di la sant di la gërëm di gërëm nag sa njaboot gi yëpp di leen wax ne que maa leen di sant di la gërëm di leen wax ne nag mbedd bi mbedd bi à partir de tey ñun ñoo ko occupé kenn